réellement da nga miir ci Sonko ma ñëw ci direct comme nangu woo ci wax dëgg la wala du dëgg. ba comme euh, <laughs> ba comme tous les sénégalais ah parce que Sonko moom nit mënul taxaw nit nit ku wér mënul taxaw dafa bañ Sonko en fait. Mm-hmm. parce que voilà espoir la voilà quoi. voilà mais est-ce que mbëggeel bi nga xam ne moom la sénégalais di di ko bëgg ak yow mbëggeel bi nga bëgg Sonko est-ce que est-ce que benn la déjà. <laughs> parce que léegi nañ da am ay sentiments si moom maanaam da nga <laughs> eh man nag très sincèrement pour dire vrai man xam nga mën a góor sénégalais yi moom c'est une très longue histoire voilà mais Sonko mën na nekk exception bi ci su déposer candidature ah, <laughs> ah bah oui donc yow mën nañ xaar Sonko 2023 bu nekkee dafa nekk président yow ngay daagu biir palais ah. mën na nekk lu mën a ne la ah, warul mën a nekk pourquoi pas donc sénégalais yi am na tey keneen ku déposé candidature am te xam naa ni dina amaat ñeneen ñu ñëw ndax Sonko ah dafa bëri ñu ko bëgg mais lan lan moo tax nga choisir Sonko pourquoi pas Amadou Ba premier ministre gis nañ ni macha allah. xam nga man dama fonk veste. Mm-hmm. yaa dama bëgg a veste te veste dafa am borom. mais kan kan kan mooy borom leeral ah Sonko moom veste nag mu sell mi. ñu ko wax te dee dëgg neexul wax kenn du ko raay <laughs> veste dafa am solo ngóor da am pënc mais mais mais yow lan nga gis ci Sonko à part bi ak kii bi parce que Sonko defoon na fi benn démarche boo xam ne gars yëpp dañ ko foto dugal ko digg lan lan lan moo la attiré ci Sonko <laughs> alors Sonko mën naa ni euh, mise à part euh, côté voilà folklore bi may wax nii et tout Euh, mais Sonko dafa nekk koo xamante ni euh, dafa am charismatique dafa dafa charismatique en fait donc euh, discours am su ma koy déglu man déjà musuma intéressé wu ci politique donc man Sonko dama koy remercier ci le fait que ñun jeunes yi mu intéressé looñu ci politique en fait man vote daf may jaral dagg bi billet jóge France ñëw Sénégal pour voter déjà loolu mosuma koon xalaat def sama live te def naa ko ren. te a moo ma ko jaral. donc euh, loolu dama ko ci remercier déjà mën naa ni daal mu pour expliquer daal en tout cas euh, am na punch bon mën naa ni euh, ba Sonko il est charismatique mm-hmm. il parle bien il séduit bah dafa jantal nga bëgg a mais voilà quoi donc maanaam yow miir nga daal ci Sonko mën nañ comprendre yàgg na comme ñëpp <laughs> kon de bi xam naa ni candidature yi buntu palais 2023 bu nekkee moo nar a dugg nar na nar na metti ay day metti yow buuxante bi fi am yëgoo lu xew sama koñ sax a ngi toj déedéet kay ii ku moom Sonko léegi dañuy ñëwaat ci suñu suñu tonton premier ministre ndax dafa mel ni da ko xaw a tënkaleex Sonko ndax yaa ngi naan veste dafa am ko ko moom donc bu ñu dégloo say wax c'est comme si moom warul sol veste Sonko rek moom war a sol veste. en tout cas war na revoir koy defaral veste loolu daal laa mën a wax oh. dafa am solo daal day yokku day yokk valeur punch voilà.